nga yow li nga doon wax noonu gis nga fii ay responsable ñoo fi ne xalaatuñu ay njaalo plateau bii nii en dehors de waxtaan foo reetaan dama lay wax rek en dehors de foo waxtaan fii ay soxna ay kilifa ñoo fi toog gën a responsable est-ce que yaa ngi may dégg fii ñu ñëpp ay responsable irresponsabilité xam nga fan la nekk dama lay wax rek mooy am naa 30 ans de mariage mooy naa 100 millions de fois loolu mooy irresponsabilité fi nga bëgg a daal yow pour yow ku ne sa jabar rek du ku nekk responsable nga kilifa nga ci li nga nekk responsabilité da nga koy yor pas responsable. voilà donc fii moom en dehors de waxtaan beeg ah, yooyu noonu yëpp. waaw man bëgg ñi fi toog ñëpp responsable lañu. wax toujours dafay wax ne comme jigéen tas baaxul neexul. Mhm. kenn bëgg ko. kenn ko amul kenn koo xam ne rek tas nga mu neex la. ndax nit di nga tas. am am am euh, di ko nëbb nit yi pour ba ñi ci xam ko nit tas na fi sax papam xamu ko. d'accord léegi Ndoye ah? Euh, loolu kañ waaw mais xale jigéen ñi kaay ma xam ne Modou Gueye léegi Modou Gueye dafa am bomb ak pomp Modou Gueye loolu bomb ma nopp bi père ma waxtaan ak yow mm-hmm. dafa am bomb ak pomp am na xale jigéen yu mel nii mais am na ñu melul nii mm-hmm. am na ñoo xam ne duñu toog guddi dañuy dem restaurant dañuy dem baal waa léegi nga xool keneen koo xam ne mos a génn këram dem baali guddi man du ma génn guddi baa waxuñu leen waaw mais kon man sama bopp laay waxal ak ñu mel ni man waa léegi ah, Pendo loolu daf may tax ma tey ma laaj la ah, man la est-ce tey kuy sëy ah. vraiment nga am jëkkër ju baax bu la bu la bu lay toppatoo lépp lu nga xamante ne lu war ci yow mu ngi koy def mhm. est-ce que kooku tey war na mën a ànd ak ki nga xamante ne amul jëkkër gorul yettul am na ñoo xam ne amuñu jëkkër mën nañ ànd am na ñoo xam ne amuñu jëkkër waaye ku ñu gis am na xarit yu teg la fa tas sëy non non man man damay wax à connaissance de cause waaw am na ay xarit yoo xam ni ñoom pour te dire que ñoom nit kuy sëy ñoom conseil yi ñu lay jox sax ñoom ñoom ñi sëyul ñoom ñoo la jox ay conseil am na de mhm. nekkul Sénégal ñëpp rek ñoo ñoo naan ñaan ndeel a tasal sa sëy pour lan non pas mhm. tasal ku kuy sëy ku du sëy est-ce que mën nañu war nañu mën a ànd war nañu mën a ànd am na su damay daje ku baax rek yaaw yaaw tey sama xarit nga mën nga am jëkkër man du ma am jëkkër mais yaaw léeg-léeg nga nettali ma sa problème may la non non non yaaw bul dem man ñaata nit billaahi te laay waxee barke xalifa Ababacar si laa la wax de xam nga du ma ko waatee di di wax lu dul dëgg sama ay xarit yu bëri man toog loo naa leen seen sëy ba seen jëkkër di ma remercier te boobu sëyu yow da nga am jëkkër ni kala yow da nga divorcé non man dama divorcé mais neexuma du ma maa indi divorcé toogloo ñooñu loo tax toogoo ko woon waaw mais man maa indi du ma maa ko indi du ma maa indi sama divorcé waaye man du ma maa ko indi neexuma déglu ma déglu ma taxawal la ngay dund ku nekk ak sa li nga mane ne ko sëyu ma mais du man maa indi sama divorce man su ma sañoon divorce at mais su ma yéen ñëpp loolu waaye nee na moom ngeen ki waaye am na foo xam ne bu fa tollee kaay divorce mm, day gën nag ndax xam nga da tànk père dañ koy tàlla wala ñu bànk ko yaa may dégg divorce yëpp moom moo duggee ban problème la am yow bu ma dagg yow tam xaar dama yeggaleeg Modou Modou Gueye dama la ñaari ba ko dem ak toog bu yemee toog ko man sama divorce man dem ak toog la woon mook toog dem ak toog ñoo yemoon waa léegi man toog gënal ma ko su ma fayee sama kër fay sama ndox fay sama courant <laughs> ah may sëy ak yow di fay continuer di ko fayal sama bopp waaye yow doo dem man ma fayal ko sama bopp. <laughs> dëgg la da ngay dem ne la da ngay da ngay tàllal ba fan. moom moo sëy si caaka caaka jaay fees na dégg naa mar mi yàgg jaay. <laughs> père waxal. waaw père waxal rek. aw ma jëkkër aw ma dara lépp maa koy defal sama bopp waaye li ma am jëkkër di ko defal sama bopp lépp moom dem ak. di ko di ko di ko defal sa bopp. ma toog góor daa day am jëkkër. góor daa am jëkkër waaw wax na ba yàq micro. jëkkër bi am jëkkër mooy sensu responsabilité bi rek responsabilité mooy sànq sens responsabilité bi père di wax rek. góor dafay responsable. waaw yaaw ah. jërëjëf jërëjëf Alima gaawal ñu jox per waaw nga ne. dama ne góor dafay am sens responsabilité. góor dafa warul xaar ci leen gis nga boo demee jabar dang koy mën mat ko. jabar da nga koy mën mat ko. waaye yow mënoo jabar nga ne mat naa jabar damay takk jabar mooy indi problème yu bari xam nga nooy ba waaw ñaam ak yaram baaba e gàlle nay ne père lan ngay wax ci li parce na question bu am solo la posé xam dafa am loo xam ne nii mi ngi koy wax euh, da koy mët mën ko mhm. soo daal da ngaa soo gisee nga war ko mët mën ko mën ko ci am am la mhm. mët gi ci xel la donc ñaar yooyu bu ko góor amul lu fay jigéen di. vraiment vraiment. da ngay sonn. sonal ki nga nekk. sonal ki nga nekk. indi la cadeele mooy indi man nag man sama dund xam nga lan laa ci bëgg. Ah. féex. féex waaw happiness freedom. nekk sama kër féex. féex nekk ak sama soxna féex. waaw am sama jàmm. waaw sa dépense day mat de. Ah mais man man. demal sama kër déglu sax man li ci gën a gàtt li ci gën a gàtt dama ne sama kër ñaari kër laa yor kër goo ci kër goo ci dem dama ne kër goo ci dem <laughs> du affaire u jooy dépense la ñuy wax ci man boo gisee sama kanam sax xam ni ñàkkuma fayda ci yooyu ah, yaa ngi dégg parce que góor war nga am fulla ba boo yoree dara nga war koo téye mm-hmm. na koy téye nag dafa am ci yoon wooy jaar dégg mët bi mën ko aussi ci la maa ngi ñaan yàlla mu yokk ba mën leen defal leneen ak leneen ak leneen ah d'accord parce que ñoom ñaar ñëpp. ñu ngi sëy normalement. te maa ngi gërëm yàlla sant ko ba mu jox ma ñaari soxna ñu demee noonu. ñuy sëy normalement mais léegi lan moo tax mooy gën a am. Moodu Moodu yow damay ñëwaat ci yow. damay ci yow parce que yow dinaa la laaj lan nga xalaat ni peut-être mooy solution yi. Ah, cinq minutes moo dese. Ndoye dafa am lu mu doon bëgg wax depuis sànq Ndoye waxul yaa yanu wax. da ngay am da ngay am sa xarit. Mhm. da ngay sa jabar day am xarit ngan ko nii sa xarit bii teel xarit neexuma. Mhm. su boobaa nooy def. na leen bàyyi. bàyyi ko. ah bàyyi ko ku sa. na leen bàyyi na wax leen rek li nga xam ne des fois ngeen di ànd ak nit. sa sa sa sa jëkkër kii ngay àndal neexuma. ça dépend nag koy teg. gars yi yaa wa ça dépend même fii dem na ba dem na ba gis xam ni kii xelam kii kii mooy lii Modou di wax xel mu dal mooy ñooñu ji Modou mais ñooñu Modou di wax ñaar lay doon lii mu wax ni ñaar lay doon des fois ngay ànd ak xarit góor ni la bugguma ko parce que booba am na lu mu sëkk ak moom wala am na lu muy gis ci moom mm-hmm. buggul nga ànd ak moom pour nga yëg ko mm-hmm. des fois nag mun nañ gis ci sa xarit bi loo xamante ni mbon la mm. wala dara buggul nga ànd ak moom muy deux cas yëpp lay ànd nag da nga ko war a bàyyi nag ah, ah, nga bàyyi ko mu doxaan bien sûr ah, deux cas yëpp da nga ko war a bàyyi waaw sa jëkkër bu la nee bugguma nga ànd ak faatu danga war a bàyyi Fatou. Ah, soo ko defee bu fase la nga ni la boo leen tasee tey yéen boo ko fasee moom mu ah, léegi Fatou mu def nan mu ànd ak ne ko bi ma amee jëkkër daf ma waxoon bugg la rek ma bàyyi la ah. léegi lan la ànd ba seeseerul de da ngay tànn ànd bi seeseerul de non da ngay tànn de da ngay tànn la bëgg a xam su ma takkee benn jabar bii ma nopp ko hmm. xam nga kon am na chance parce que du ma nopp mën na ba mu yegg fenn mu ne ma sa xarit bi bëggatu boobu je l'aime pas Bouba Ndour bëgg bëggu mais ma bàyyi Bouba ma bàyyi Bouba Ndour bu gel bi defee njombe Bouba Ndour bii bu ko jabaram ni woon tànnal maa ngi mu liggéey mu bàyyi ma non non ma léegi ndeela may na day day day la plupart des des cas. donc yàlla bu ko nekk ci situation yu kii yooyu noonu. xam nga rek mën na sama xarit les amis célibataires. waaye da ngay am xarit yoo xam ne pooba lañu. ay xaritu pooba ah, c'est vrai célibataire. Mm. parfois dañuy conseiller bu baax. waaw da ngay bëgg am morom. Ah, non non ay xaritu kooba. da ngay am da ngay am xarit da ngay am da ngay am gis nga ne soo nekkee dëkk ci dëkk bi nga am xarit sa jabar am xarit boo xam ne kii day am am jëkkër am far wala mu am xarit boo xam ne amul amul jëkkër waaye kooba la fii ci dëkk bi la ah. la xarit goo xam ne xam léegi bu dee yow ku jigéen tamit gis nga ko ndooy baan mii muy ànd ak Modou mii nga xamante ni dafa terrible xam nga ay jëf-jëfam yu bëri su bëggee dem doxi da da lay da ngeen di teg ku nga jëkki saay jaaraalu ci kër gi naan ko nañ dem grand place ba bu ngeen génnee kii da koy bàyyi na ma <laughs> eh, tontu man li may bañ mooy nga nga nekk góor Modou am jabar ma am jabar chaque jour Modou Gueye di añi sama kër te du añi këram vraiment dama lay dàq ne la dama la añi sa kër wallaay boo amee ful xam nga mhm. nit kon loo takkee jabar doyee noo góor a takk jabar mu ne ma del tam tàmm di añi sa kër. chaque mhm. heure añ deel añi. ci laa añ ma dem sama kër añi. Mhm. d'accord góor day def loolu waaye chaque jour nga dem sa kër xarit. di añaane sa jabar fële. bi ñeen ñëpp ko moom en deux parce que deux minutes moo ñu dese. Mhm. lan ngeen gis ni tey loolu mooy Modou ci yow laay commencer après ñu def tour dernier tour de table lan nga gis ni tey xëy na bu ñu ko defee yëf yi dina xaw a tane daal solution. solution yi tey lan la en deux minutes rek Ndoye. suñuy bëggante su fekkee dañuy marier avant de se marier il faut que fen bañ si bokk. benn mhm. cause de problème yëpp c'est le mensonge. benn mooy fen. deuxième bi ba tey boo fekkee da dugg ci ni par calcul tout le monde du ñuy sëy ndax calcul la mhm. la àddina bi day gën di bon. tubaab yaa ngi def tout pour góor a góor sëy <laughs> jigéen ak jigéen sëy doom sax léegi dañuy calculer doom bu la neex kawar geeg benn lépp tout est artificiel maintenant mm-hmm. même mariage artificiel la mm-hmm. am na ñoo xam ne dañuy ànd nga defe ni sëy dañoo dañuy sëy mais guddi ñu fanaan te dañuy won nit ñi jëkkër ak jabar lañ mm-hmm. tout est calculé léegi nag tant que sincérité amul. nga mm-hmm. nopp sa jëkkër respecté ko. Mm-hmm. soo ànd ak moom restaurant xam ni ngay toog. <laughs> ex ñëw ngay non c'est vrai. aywaay Modou Modou xanaa loolu daf la dal. mel ni ku ko minimiser man fase naa si jabar ah, ah, ah, sama ñu toog restaurant góor ñëw fon ko. sa deux minutes jeex na. bii loolu moo fi nekk <laughs> yabaate. <laughs> arrêté. sama ex la woon def lii. sa jabar sa jëkkër da koy respecté. dëgg la te da ngay yem ci possibilité am. Mm-hmm. su sa jëkkër amee salaire ru 500000. góor may la 1 million nga jël def sa poos yaa ngi tas sëy bi. Mm-hmm. Mm-hmm. arrêtons alors solution man la ma njëkkoon rek lay mujje dëgg ak jub bu nekkul fenn fenn du taxaw. le sens de la responsabilité aussi. c'est très important.